nii yow Babacar yow Babacar sëriñ Babacar Si Maalik lañ la dubbee Bakare dara maar aram loo maas kumba jaam mbañ benn buku benn xar yàlla bokku joor Babacar ooy Baba ay ay waay ne leen Baba ñëw ay waay Baba ñëw na ay waay Baba ñëw na ay waay Baba ñëw na yow baaba ñëw na yow baaba ñëw na Eke Massi TV ñëw nañu yow baaba ñëw na yow baaba ñëw na yow baaba ñëw na asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki téléspectateur Equivox TV waxoon naa leen maa ngi biir Gambia maa ngi biir Gambia ah fi ma nekk neex na bu ngeen déggee way yooyu dégg tëgg moomu ah ngeen xam ne jamaykee moo woote France Leket Baara signature contrat xulle kaay xool nga xale jigéen Gambien ni naay sa nañ naay maa ngi fi rek maa si jàmm noo tudd yow noo tudd. may biisu biisu bu Balla Gaye de. Séeri Kacha waaw. ok kan mooy sa mbër. France maa ngi koy ñaanal yoon ko yàlla may ndam. fii mooy fan. ay Pauline. ay Pauline. neex na de. torop France ak Boy Niang maa leen di ñaanal yal na leen yàlla may ndam. yal na leen yàlla may ndam. ak bu France wala bu Leket. man Yacine Xarañ waaw. kon yaa ngi waajal Ama Baldé. dama koy waajee ëpp na. li koy waajee du ndànk sax. face à bi fii lay am de Gambia. incha waa xarañ famille ñoo ngi koy waaj lu takku na waaw waaw. fii neex na ah. fii dafa neex. waaw waaw dafa neex. jam du tëgg lu la jam du tëgg lu la wet. maa wax eh noonu ci loo ne yow. say seen nice de. Kadi Kadi Kadi mu France. yow France mooy sa mbër. 100 pour ndax mën na génn ci combat bi. ndam rek incha allah rabi waaw. mais tey yaa ngi happy naala ah? maa fay naa ngi si jàmm. yaa ngi fine. maa ngi si jàmm bu baax sant yàlla. Jeynaba. xareñ. Jeynaba xareñ la waaw. ana supporteru Ama Baldé yi. non non supporter dama Ama Baldé. non rek. kese. France leket kan mooy sa mbër. waaw. di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla may waaw. yow kuy sa mbër yow. leket mooy suma mbër. mooy sa mbër. leket waaw. waaw leket bu baara mooy sama mbër man maa ngi koy ñaanal mu am ndam si kaw Franc xoolal dama bëgg mu daaneel ma Franc ba daaneel waa Banjul waaw waaw. yow France dina dóor leket ba toog si kawam man maa la ko wax. duma wax ak kii man duma wax ak kii waa Banjul duma wax ak ñoom. yow xam nga ne sa mbër bi ànd naa xoolal yow. moroom day daan laket du moroomam sax affaire bi laket bu baara lañ wax lay dem man France mooy waaw moom lay ñaan mu am ndam waaw ñun France moo ñu fi waaw moom la ñuy waaw fii laa waaw mel ni tey combat France ak leket combat bu mag la fii ci Gambia waaw dafa mel ni Mourlo Balla Gaye waaw dayo bi noonu la toll waaw comme Mor Lo Balla Gaye dayo bi noonu la toll waaw li ñu lay xamal daal mooy làmb ju rëy la waaye ñun nag ñu ngi si gannaaw France ñun France 100 pour cent la ñun waaw moom lañ faral ko ñaanal ndam lu rëy nag waaw. waaw fay nañ la bu baax a baax la maa si jàmm bu baax a maa ngi am jàmm bu ah? ñu ngi am jàmm bu baax a baax di la ziar waaw Gambia ngi ni di neex rek ñu waa ñu ngi lay dalal neex na trop sax waaw neex na trop waaw. jërëjëf yow sa man Boy Ba la mooy suma mbër waaye amateur laa damay ñëw pour seetaan ci lam waaw. maa ngi lay bëgg kilifa gi. maa ngi lay sant di la ziar bu baax a baax Babacar di la nuyu di nuyu sa caméraman bi di nuyu waa Vox Arena di nuyu ñu ñuy bàyyi xel yëpp jamono ci ni tur bi Modou Lo la waaw. Moodu loolu lañ ma tuddee mooy sama papa moom la ma tuddee ñu bari nag dañuy foog ne euh, mais bi champion bu nekk fële tax ma tuddee ak sama bopp ak yooyu suma tur dëgg Moodu la waaw euh, tey jam production organisé fi lu tool lu mel ni face à face bu doo dox si diggante Leket ak France muy combat boo xam ne comme ni ñu koy waxee fii ci Gambia maanaam boo ko doon natt tey ci tolluwaay comme Sénégal danga nga naan Modou Lo mu ne Sénégal ak Balla Gaye 2 ñooy bëri combat Euh, Lamine amaan mbégte ak kontante di kontaan ci li nga ma laaj noonu ndax tey euh, ñaari mbër yi seen tolluwaay jamono ji ci biir réew mi doon na ñi nga xamante ni tey dama ne bu fekkoon Sénégal euh, combat bi ñu jàpp ne moo fa gën a rëy muy diggante Modou Lo ak bu ñu waroon a sëgg benn tàkkusaan ak ki nga xamante ni moom mooy Leket ak France si biir réew mi dañuy bàyyi xel combat bi ñi nekk fële bàyyi xel combat bale boo gisee ma jox la exemple boobu mooy tolluwaay ñaari mbër yi ndax tey ki nga xamante ni moom mooy Leket doon na ki nga xamante ni tey ba muy jëf ci lambi Gambie yàgg na lool Euh, ki nga xamante ni moom mooy France it 2012 ba léegi ñu ngi koy bàyyi xel ci li nga xamante ne mooy mooy làmb astafurlah 2013 bu leen jam promotion tëggalee combat askan wi dundal làmb te nekk ci biir réew mi dañuy bàyyi xel combat boobu baax a baax a baax dafa am loo xamante ni dama ko bàyyi xel ci leket muy li nga xamante ni tey moom mooy mbappat competition mën nañu bàyyi xel ne lu mu compété ci wàllu mbappat gisuñu France def ko ndax tey buñ bàyyi xel génn na dem li nga xamante ni moom mooy nekkof euh, Sénégal wala CEDEAO li nga xam ne jongante fa ci biir réew mi waaw dem na Naija dem na CEDEAO moom moo doon capitaine team yi national team bi fii ci biir réew mi. Ah, bu Gambie bu Gambie. moo doon seen capitaine moom moo doon seen capitaine. dem na Naija dem na Niger dem na Sénégal fii ci biir réew mi jongante na fi ay mbappat yu am solo jël ko. ñu leen fekk nii ngeen def face à face bi mooy mooy ay Pauline defe naa. waaw fii nag mooy ay Pauline te du suñ euh, njëlbeen yoon ñu def ko fii mooy suñ ñaareelu yoon euh, parce que soo seetloo diggante xoyantaan ak Baye Mandione fii lañ ko defee woon. fii si High Pauline mu nekkoon combat bu neex ñu daal di ko defoon si bisimilahi rahmaani rahim jëkkale woon ko si alhamdulilah ñu jégaat na digaal diggante Leket ak France te boobu su ne Leket ak France nag boobay diggante Balla Gaye ak Modou Lo si Dakar waaw. seen diggante ak Jams production. waaw jam nag yàgg nañoo liggéeyal moom wax dëgg ne yàlla di bu mu fi teewoo because ñun lambi Gambia lañu nekk di liggéeyal. Euh, parce que ñooy association làmbi Gàmbi man maay seen njiit bi euh, parce que képp ki nga xam ne rek dangay ngay tëgg làmb Gàmbi foog nga ñëw wax ak man ma indi la ay jànqa yoo xam ne dañ lay liggéeyal si bis bi euh, parce que tey taaru yu ñu fi def daf fi bëri VIP bu nekk xandul nañ ko bu stadion bu Serekunda West Serekunda East fu mun munti nekk rek dañuy oo ñu génne ay jigéen ñëw ñu liggéeyal la soo paree ñu dem noonu lañ fi nekkee. tëgg nga fi lu rëy a rëy. waaw ñu ngi doon jéem rek waaw jéem neen fi def tuddewoon ko suñu doomu ndey Jamaïcain waa mu ñëw def fi lu rëy si bis bi waaw ak doomi ndeyam waaw Mor maa ngi bëggee ñëpp di siyaare képp ku jógee senegal ñëw fi di leen ñaanal jàmm ni ngeen fi ñëwee si jàmm ngeen ñibbee ko si jàmm di oo képp ñëw si programme bi yàlla nga ñëw si jàmm ñibbi si jàmm di ñaanal bis bi yàlla defal ko si lu wees si njortoom parce que sonn na si lool yàlla na Gambie yëpp jàpp si ñaanal ko bis bi mu jeex si jàmm daal benn problème bañ see am barke Seydina Mohamed waaw di leen jërëjëfal bu baax a baax. Babacar ñu ngi lay ziar. yëngu yi waaw di nuyu sa site bi Equivox TV. waaw di rafetlu bu baax seen liggéey. waaw ak déplacement bi ngeen def Gambie ba Sénégal daal ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax waaw. mu mel ni yow tamit gis nañ ne jam fu mu taxaw yaa ngi fa taxaw ci côté di ko dooleel di ko jàppale maanaam daal mu mel ni mooray jam jamay moor. waaw Babacar waaw loolu c'est normal parce que tamit euh, jam production jam may sama rakk la su ma si jàppee dama si war a jàpp su ma si jàppul dama si war a jàpp. lépp lu mu dugg lu nekk maak ngi moom ñoo si ànd duggandoo si kon nag suy résultat di am ñoo koy bokk suy leneen di am tamit ñoo koy bokk moo tax bisu Jamaïcain sama bisu bopp la wax dëgg yàlla dañuy lépp lu mu si mën ak lu mënul dañ ko siy def pour mu am résultat daal waaw. combat bi ngeen tëgg fii Gambien yi koo wax mu ne la mooy Modou Lo gay Gaye Sénégal. waaw xam nga France Laguette mën na ne quatre ans ngi nii promoteur Gambien di ko dox yàlla dogal ne kenn mënu ko si décrocher. yàlla sunu borom nag jamaïcain la ko jagleel mu décorosé ko kon su ko décorosé nag làmb ji bëri coo am bruit kon nag il est temps ñun ñëpp ñuy réunir saa su ne di xool événement bi muy France ak Légué naka la ñuy def pour mu am réussite à 100 pour cent parce que nekkul combat boo xam ne dafa facile pour décorosé ko ñaari mbër yi seen dayo mu ngi mel ne nga ni muut loo ne Balla Gaye Sénégal noonu la mel fii nii Gambie mooy wane tamit nekkul combat boo xam da ngay négliger benn détail. saa su ne ñu ngi def ay études ñu ngi innové soo xoolee tey face to face bi rek waaw fi ñu ko defee rek da ngay xam ne innovation ak jam production tamit saa su ne mu ngi gën a améliorer di gën a avancer waaw di si sant tamit euh, ku si mel ne ay Welma boutique tey soo ñëwee si kanam tuuti di nga gis ne mbër yëpp waaw dañ leen ab habillé ay costume yu rafet ça veut dire ne yooyu yëpp ay innovation la te bëgg nañ tamit yóbbu làmb Gambia si beneen level moo tax saa su ne ñuy créer di jéem a innové daal waaw. waaw di gën a yokk. kon ba ci kanam ñu dem ci phase si kanam tuuti rek ñu yeggal yi waxtaan Babacar kontaan naa trop jaajëf. ñuy dund làmba waaw bu baax wax dëgg yàlla bu baax a baax soo xoolee nu nu affaire yi taaroo rek nga xam ne ñu ko dund bu baax wax dëgg yàlla waaw. tey combat France Leket noo ko gisee. ah nga man promoteur laa li mu mën a wax daal ku jum daanu waaw ku jum daanu rek laa fa mën a wax waaw. sa digganteeg Jams. waaw am nga ñun ñëw ay mu leen rek am nga jàmm rek lañ seq rek kaw la na ma ñëw teewee ko oto sànga su affaire yi jeexee ma ñibbi suma kër waaw wax dëgg yàlla waaw jàmm rek moo fa nekk wax dëgg yàlla dara nekk fa lu dul jàmm ba euh, sa euh, combat yaa ngi tëgg combat kañ sa combat tat bi kañ la non non non man fu nekk suma combat yëpp pare na fu nekk si jàmm yàlla man dimanche bi ñëw ni rek mooy suma combat yi waaw suba yàlla yónnante ma combat yi moom lépp pare na daf ne Tyson xoyantaan ci bi Gambie yëpp loolu mooy coow li fu mu nekk nii waaw ñëpp moom la njaqaar ba dëgg yàlla waaw wax dëgg waaw eh, stade yoon baxaw moom xaju fenn bakaw dul baxaw rek waaw xaju fenn fu dul baxaw damaa réussir ñama tëgg la ku mel ni roi des arènes roi des arènes euh, Gambie xoyantaan moom defe naa ne ku ko tëgg boole koog double Tyson nga xam ne waa Kaolack yëpp a ngi koy xaar loolu rek la ma si teg nag moo ëppati loo mel ni tabaati na manduwaar manduwaar lu mu bëgg a jënd nag mun na 200 200 ticket jënd na ko moom man suma ticket yi génnaguñ ta ñu ngi koo dimaan fa mu nii te ticket yi génnaguñ waaw waaw sant yàlla rek waaw yàlla baax na bu baax amin yaa rabin amin yaa rabin yow tamit maa baax waaye yow tamit ku baax nga yow tamit am jàmm alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin di gërëm yàlla rek lii kay lañ ñaan yàlla affaire bi gën a avancé dem si kanam mbër yi gis seen bopp xam nga sport dafa baax ku si jàpp da si war a jàpp ba pare jamee kay nekk koo xamante ne alhamdulilah rabbil alamin xale bu am fayda la ku gëm lu moo def la ku bugg Gambie la ku bugg Sénégal la di ko ñaanal yàlla rek moom moo xam bépp tam yal na ko yàlla jàppale mu àggali ko ci jàmm. sa digganteeg jàmm. waaw jàmm rek lañ seexa mu ma jàpp mag ma jàpp ko kom rek booy bu baax ku am xelaat bu baax ku bugg Gambie ku bugg Sénégal ku bugg sport làmb daf ko ñor waaw sama digganteeg moom nag yaatu na waaw alhamdulilah waaw. ñaari mbër yi toog nii xam nga leen France ak Leket. waaw ah, xam naa leen bu baax waaw. bi noo ko gisee. waaw ah, combat bi moom alhamdulilah rabil alamin li ñoo ñaan yàlla rek ñu tàmmale ko si bisimilah rahmaani rahim jeexale ko si alhamdulilah rabil alamin waaw. ñoom ñaar am na favori seen diggante. man aw ma favori si mbër. waaw ku gëm li ngay def rek liggéey liggéey bu doy boo ñëwee impliqué ko yàlla bu la suturalee di nga am ndam waaw. alhamdulilah di di rafetlu seen teewaay fii vraiment di nuyu suma rek euh, jamaïcain Euh, man ak moom xamante nañ balaa làmba muy rakk ju baax te ñu ñëw teewal ko ànd ak moom ci bésam vraiment gunge ko dina rek Gambie ak Sénégal benn la yaakaar naan man muy wax ak yow nii ah, Jamaïcain maag moom mun naa ne benn lañu ñoo bokk jëmukaay ñoo bokk làmb bi kon ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla muy xale lépp lu mbokk ci ivinam yàlla na ko yàlla defal dinañ ànd ak moom gunge ko wane ko ne Sénégal ak gambi benn la Sénégal ak Gambie sotti ko so def ko si la kon ñu ngi am ci moom mbégte bu baax di ko dalal di wax ne rek ne incha allah ci kattanu yàlla ah, ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñaanal ah, di ko ñaanal bu baax a baax a baax yàlla na ko yàlla def mag lépp lu mu bëgg ci ivinam yàlla na ko yàlla defal kontaan nañ bu baax a baax a baax a baax di nuyu promoteur yëpp di leen nuyu yéen tamit di leen wax welcome. man maay caatu promoteur yi garab yi suma mag la léegi Euh, mu mel ni làmb Gambia tamit mu ngi avancé. waaw waaw sant yàlla ma wax dëgg yàlla mu ngi am tànki kanam moo wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla bu bëri ñu ngi bay suñu waar luñ ci mën yëpp ñu ngi ko ci def daal làmb ci kanam rek moo ñu ñor. li tey da ngeen ñëw dooleel seen rakk Jamaïque. waaw jam soo xoolee rek ni ñu ko dee waxee rek suñu rakk la nekk promoteur moom itamit ah nekk phénomène si làmbi Gambia di dox interrogation diggante Gambia ak Sénégal soo su xewlee dafa mel ni promoteur Gambia yëpp a xewle tey moo tax moo tax ñu teew fi soutenir euh, Gambia Wrestling Promotion Association ngir dooleel ko mu ne loolu am solo nag dëgg combat boo xam ne combat Sénégal bi la combat daa bi la dëgg si ñaanal réussite totale daal si barki Salatu Fatiha am na solo bu baax a baax jërëjëf yaa tur bi la am naa ci wàllu promotion la waaw ñu ngi lay ziar di ñaanal jàmm tamit di gërëm jameekee tamit parce que lii boor la dañuy am ay bés mu ñu teewale ñu parce que soo seetloo ren maa saison bi mu déplacé woon jógee ko Dakar ñëw teewal ma kon moom bu xewlee dañuy am bàyyi suñu yitte yëpp ñëw teewal ko di ko ñaanal jàmm daal di ko wax ne moo xam lu mu bëgg si event bi rek yal na ko yàlla may daal incha allah jaam mbégte si yow tamit ah jërëjëf waaw. mu mel ni kon daal Gambia actuellement macha allah ci côté promoteur moom mu ngi yokk macha allah ndànk-ndànk. waa yokk na moom macha allah. waaw di ànd samay grand frère samay mag samay am di jàmm di daan ci jàmm si lu mu def bu dee dëgg rek combat nañ te yàlla moom la ko jagleel yàlla nekk combat bu sedd xool nekk combat boo xam ne yàllaa ci sotti ndox mu sedd lu ci nit ñi di xalaat yàlla bu mu ci am yàlla nekk loo xam ne day yëkkati Gambie ci kanam ba raw senegal parce que ñun si senegal lañuy ñuy topp ñooñu raw man mi di wax doomu Sénégal la waaye fii fii laa nekk te fii laa amee sama teraanga kon mënatuma fay génn kon fii laa dëkk waaw man dama laa xam bu yàgg nag. waaw xam moom ma. foo ma xamee. dañoo tase mbapat yu dañ ko tase des nañ Fatick des nañ Ñoojoor Joor ba <laughs> non ba dama laa topp topp naa la topp mais adresse Senghor dama la fay topp waaw yàlla def loolu. yow foo dëkk ci Sénégal. man maa ngi dëkk Kaolack waa Joor waar laa waa Joor la. sama kal la waaw. kon yow moom ah yow tamit maanaam dang cee bokk. waaw amoon naa mag bu doon bëre yàlla yàlla na ko yàlla yërëm carrément. carrément waaw yàlla ko yàlla yërëm suuf oyo ci kawam baax na baax kontaan si delloo kontaan bu baax a baax

tey moom tey moom tey moom xàmmewuma la sax man. waaw da nga maa fekk sama dëkk da nga fekk fi nga xam ne ma fi Gaston Mbengue ma fi Luc Nicolaï ndax làmb yi askan wi bëgg maa koy yëngal waaw ndax làmb la. li saa sel ka daal tëgg nga lu neex. waaw noo man yow bi ma ñëwee ci làmb lu neex laa la amateur yi ndax. Euh, ñun dañoo yàgg ci teen bi di rëbbu xam mbir mi xam fan la teg suñu tànk xam nan lañ koy doxalee lépp lu ñu tëgg rek su neexul si ñun la làmb dañ ko tarbiwu sonn ci tey bu ñëwee Gambie fii jël combat bi nga xam ne pili ne huit ans ku nekk bëgg nga ko tëgg mu të ñu ne ñun dinañ ko tëgg delloo ko njukkal askan wi ndax lépp lu askanu làmb bëgg ñun ñi mën ci dara dinañ ko def loolu tax ñu tëgg combat bi combat bi nag nekk combat bu yàgg combat ñaari at deux ans bi moo gën a yàgg ci histoire lamb gàmm France ak leket dox bi dafa yàgg taxawal bi yàgg bëre bi ba léegi mënugul am jàpp nañ ko le treize ñu ngi ñaan sunu borom yóbbu ñu seeg jàmm di dugg seeg bisimilahi rahmaani rahim génn seeg alhamdulilahi rabil alamin suñ ci jógee dinañ yóbbu lamb Gambie beneen level hmm. am na solo mais li ma lay laaj tal Wélma boutique ni la def na waar waaw dama ko waxoon ne kos ku koy sonal ci diggante Sénégal ak Gambie wala ci Afrique boo mu ci laajul sama xalaat a ci fekke yaa ko teg sa bopp ndax maay borom. loo tax nga ne yaay borom. non xam nga zéro graisse zéro bàyyi sa yooyu. cholestérol ku yëpp cholestérol. xoolal rek. man ma xam la dama koy sol di daagu. waxal ci wel dara. kon vraiment mention spéciale. ministre bu bëgg a yàgg sa poste. président bu bëgg am 10 mandats. directeur bu bëgg a toog sa poste ñu lay wàccee dem wel moo am ñu lay solal promoteur bu bëgg a téye diggante ñaari réew nag ñii di la wooyee jam production ñi naa lañ jam promotion demal ci wel moo am ñu lay solal reporter tamit bu bëgg a téye kaw nu bi ñun de solal nu waaye nu ngi reporté ñu di nga dem dalay commencé loo ci mën a dégg dama gun ci moom waaye nu ngi reporté de yaa ngi reporté incha allahu rabi dañuy continuer reporté da ngay continuer reporté waaye boo demee boo demee ba wel maa la may laal de Rimka Couture may laal. non Omar Tawa Assalem mu ngi may laal. Rimka Couture si trois morceaux la lay laal. man trois morceaux daf maa jàpp. waaw léeg-léeg nag nga. bul yokk xar mi karaw. sa problème la la. problème mooy man kenn du ma suul te deewaguma. yow sa costume dara jàpp ndax. man lu ma mën a jàpp daal ku Rimka Couture ak ma koy jox Omar Tawa ak ma koy jox. Magu Samisan nga Rimka Rimka Couture ñu ngi koy nuyu sunu xarit la. sunu xarit la ñu ngi koy nuyu bu baax li ma sol fi mu la jaarale macha allah macha allah te temps yi da te temps yi da ngay waaj a ñaareel bu la defee nii def na li mu la war a def loo ci mën a dégg daal Wélma ñu ngi koy nuyu di ko ziar moom moo Wélma ñu ngi koy nuyu yow tamit di la nuyu ak sa caméraman ndax wax dëgg yàlla combat bi liggéey ngeen ci liggéey bu am solo tey ma ak yéen démb loon tey soog a ñëw fu ma jëm ngeen topp ma maa ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm xéwal di wax nag sponsor yi yi nekk Sénégal bëgg am lu ñu produire Gambie nañ ñëw teg loxo mbir mi ci loxo jam production mu liggéey leen ndax soo xoolee li nga gis fii nii tey Babacar mention spéciale combat yooyu tamit ñuy tudd Balla Gaye Modou Lo nañ leen indi fii face à face allah rabbi kay ne ne face à le trois fii lay doon Modou Ama ci incha allah ñun ubbil nañ ñëpp buntu yi di woo ñëpp ku si ñëw dinañ la gunge sunu expérience sunu xelaat ak liñ ci jot a ak liñ ci jot xam di njabootu làmb yëpp kii moom ñoo jiite lépp luy sport ñoom lañ ko dénk National Sport Council combat bi ñoom laa ko tuddee mooy seen directeur Marcel Mendy ñu koy jaar gis nga ko xewle day ñëw bàyyi léppam ñëw toog promoteurs yëpp ñëw fi ñoom Jadal Touré waaw ñoom Matar ñoom Luc Nicolaï Ali Ndaw VIP am naa si wàll ñoom ñëpp ñu ngi fi waa Young promoteur association nag dañuy waaj lu doy waar ki nga xam ni tey mooy Omar Seydi Kandi Doubalès suñ président moom la ñuy saragal tey fii di wax na Babacar maa ngi lay ziar di ziar Seck di nuyu sama grand mor bu parcelle foo gis jamaïcain gis ko ci wetam waaw topp na ma fu nekk di ma gunge di ma dooleel di ma xelal maa ngi koy nuyu baax a baax a baax di ko nuyu di ko jox wàccuwaay bu baax a baax a baax di la ziar bu wér a wér sinon yaa ngi si jàmm nice gam bi ko dundee waaw gam neex rek neex na na de kon jeex na Gambia ca kanam di bu baax a baax a baax xulle ñu ngi koy siyaar liggéey bi am na solo di nuyu hélas moom yoon bi xam naa ne sonn na tey ñu ngi koy siyaar bu baax di ko nuyu di nuyu promoteur yi nekk senegal yëpp di tàllal loxo gaayar ñu gën a dooleel sponsor yi Al Amin sadoor ñu ngi koy woo fii ci Gambie daal quoi kooku eh Zador. non dañ maa ngi koy woo. Zador na ñëw fii ci Gambie. diw gi diw gi waa Gambie dañ siy war di. lekk di si sangu di ci diw